ñuy jëkk bokk ci émission bu nga ñu woo leen ci laa bokk euh, li tax ma demoon ci mooy man su ma yëkkatee sama tànk dem ci télévision euh, li nga xam ne mooy sama yéene mooy li ñuy waxtaanee ma leeral ci Sénégalais yi ak ñu dul Sénégalais te dégg wolof te li dox ci réew mi yitteel leen te yéen seen émission bi faram fàccee dama jàpp ne waxu réew mi ko tax a jóg ci biir loolu. ngeen di làmb di daj ñi nga xam ne dañ ci am cër wala dañ ci am xam-xam su ko defee li nga xam ne man euh, maa ngi koy rafetlu ci télévision yi mooy li nga xam ne dafay xeetoo ak yee nit ñi ak dëgëral seen taxawaay ci mbiru réew mi ak rafetal nekk ñu ci biir réew mi. ba ko borom di def tuddee woon na ko euh, neneen penco ba mu nekkee feneen waaye kenn nit ki la may kenn ki mu wowoon ma. ma uyu ko foofa bi mu soppee place itam bi ma owaatee mu uyu ko ndax xam naa ne dafay laaj ay laaj yoo xam ne eh, maanaam eh, danga koy ja dëgg dëgg dëgg njaay la sant mais foofu dafay xaw a nekk gay da ndax dafay eh, dafay lay dafay dafay attaqué attaqué yu métti daal li gaa yi wax gaynde jaay dafay jam dafay dam yax waaw moom koy am na gaa yi wax ne dam na seen yax dëgg dëgg góor xale bi moo wax dëgg yàlla amul morom affaire article bi taxul ma poser question bi de. mais d'accord mais, yaa ngi bëgg répondre ci loolu. alors que man sama question dafa jiitu lii man dama la dégg ba tàyyi nga ni kuy joxe ndigal sa sa. bopp moo tax. man d'accord mais bëgguma nga régler compte boobu non Grand Place bi ci plateau bi. loolu leer na di am occasion peut-être ak ñoom mais man sama question dafa dafa dafa antérieur problème Walf Grand Place bi. yow sa discours moo mës a wax mu wax ko dinaa ko wax mais dama bëgg mu leer askan bi ne fa ma nekkoon débat xalif général des mourides amu fa débat état fa am kon ña ko bind na leen engagé te yaakaar naa ne danañ ko rectifier d'accord ñu bëri dañuy wax naan euh, wax bu bëree génn asaka ba tax na ñu bëri dañu ragal dem ci yenn émission yi jàkkaarloog yenn journalistes yi moo xam ci wàllu français la wala ci wàllu wolof ñoo xam ne ni dañ lay laaj laaj yu laaj yu da yaakaar sax ni ki daf la bañ ba daf la contre parce que mais mais bañu la contre la moom moo fa nekk ki kii jàkkaarloog yow li maanaam rôle am moom mooy fexe journaliste bi rôle la mooy fexe ba kii kii lay seetaan ñi lay seetaan ñëpp kenn ku ne lim la bëggoon a laaj ak dam la ko bëggoon a laajee lim bëgg a wax wax loola ko moom laaj la ko sa noon ak sa xarit ki nga bokkal gis-gis ak ki nga wuuteel gis-gis ki xam ci yow loo xamul ci moom tam bëgg tam bëgg Sénégalais yi xam loolu loolu moo tax lu métti la mais amul danger ci nit ko am lu mu gëm nit ku am xalaat ak gis-gis bu leer bu dëggu ci moom nga jàkkaarloog journaliste di wax ci la nga xam li bon mooy wax ci loo xamul ak a jéem a ta taqale taqale euh, loolu moo tax euh, soo soo soo jàkkaarloo journaliste bi nag li nga war a moytu mooy wax loo xamul wax loo gëmul wax loo dëgguwul ci yow euh, soo soo ko deful rek amul benn danger. bon man quand je viens une émission émission boo xam ne bosam la je m'attends à toutes les de questions donc du loo xam ne pour man sax du problème mën na la poser benn question boo xam ne bokkul ci li ngeen li ngeen. Euh, pare woon comme sujet mu posé la beneen question à la limite mën nañ ne hors sujet la mais ci ci ci euh, ci po mi la bokk mën nañ ko waxee noonu donc gisuma vraiment benn question particulière bu mu posé te waru ko woon posé. ñu bari dañ ma oo ma neexul ba neexul mais nag émission bi bokk na ci gën a am solo yëpp daraja ak mat ak yar ak teggin ndaxte këppatal ga daanuwoo fa te waaye aussi laaj na loo xam ne moom war a moom la la war a laaj te boole na ci léegoo-léeg yar ak ndaxte ci ci tàmbali ga ñagasoon na waaye bi mu demee xam ne fulla jeeg fayda ji ak waxtaan wi matee na ko mujj na nekk waxtaan bu sell bu rafet. bari woon na nag ay question piège parce que loolu lay liggéeyee mais euh, boo xoolee concept émission bi moo laaj loolu moo laajoon noo euh, am na pied am na euh, ay ay ay question yoo xamante ni sénégalais yi dinañu bëgg a xam mais duñu xam fan lañ lay gisee pour laaj la ko alors moom dafa toog ci place sénégalais yi pour laajal leen il faut nga dégg wax il faut nga dégg wax pour xam ni question piège la Euh, soo déggul wax rek euh, man nga énervé euh, parce que xëy na doo bëggoon waxaat ci walla bi nga ko doon wax temps bi nga doon wax loolu xëy na gëmuloo ko woon da nga ko doon wax pour def affaire politique politicien mais bu fekkee ne loo gëmoon la te nattoon nga ko ba xam ni mooy li gënoon nga door ci prononcé wu alors bu ñu la ci laajee doo am benn problème pour tontu ci. daf ma invité woon parce que jamono jooju candidat laa woon dama posé woon suma candidature à la présidentielle de 2012 donc ci série invitation wu candidat yi mu woo ma ne dama bëggoon nga exprimer wu comme ça réew mi gën la xam d'autant plus que man ci diaspora bi laa jóge woon donc émission bu populaire bu mel ni Faram Facce permettre na ma su ma programme présidentiel ma étalé ko boobu moo doon première invitation ndax man ñaari yoon laa fa jaar deuxième invitation bi mooy bi nga xamee ne jël naa suma candidature yekkal ko l'actuel président de la république jàppale ko donc renoncé wu ci suma candidature mu ma doon laaj lan mooy raison yi nga xam ne moo taxoon ma renoncé suma candidature di jàppale Macky Sall ak lu tax Macky Sall donc je pense que deux concepts yooyu moom ma indi woon ci émission yi te tubaarkàlla je me suis bien exprimé te permettre na ma parce que canal au moins nit yi xam man suñu position. Papa Ngagne euh, bi mu ñëwee TFM ute na ak na mu ne woon feneen ba tax na fekk li mu lay wax di la di la bunduxataal daf lay yóbbu ci nga xóotal waxtaan wi lu baax lay doon. lépp loo xam dafay dafay oyofal nit dafay doyadil nit man du ko may kenn ndax dégg naa am na sëriñ bu mag bu daan wax ne nangu naa woyof wante du ma nangu ko ma woyofal te xam nga euh, télévision dafa nekk loo xam ne dafa doy waar ndax ku mel ni man jamono bu may dem télévision damay bàyyi sama xel ci samay nawle jiit na samay nawle samay waa kër te ki samay doom samay xarit ñu ma jàngandool administrateur bi li ma nekkoon ministre yi ak yooyu kon lu may wax dafa am fu ma koy teg bi ci des mooy réew mu mel ni Sénégal sooy waxtaan da ngay bàyyi sa xel ci ñett yi benn góor gu mag moom ma ko waxoon ci booru gaawaan mu ne ma sooy wax ci rajo yi da ngay bàyyi sa xel ci ñett ñi ki ci jëkk mooy ki la ëpp xam-xam di la déglu ki des mooy ki nga yamal xam-xam keneen ki mooy ki nga xam ne yaa ko ëpp xam-xam soo bañee nag ñu diingat la da ngay natt ki nga xam ne yéen a yam xam-xam nga bàyyi sa xel ci moom su ko defee ki ngay ki nga xam ne yaa ko raw jàng ki nga xam ne moo la raw xam ne téye nga ci ma ne ji nga kilifa kilifa yi ni ni këyit lañ lañ mel rek am na uh, këyit yi feuille yoo xam ne ngelaw lu muy tudd mu ni fii rek mu yóbbu leen fële teg dugg nañ foo xam sax dootuñ mën a jógee mais am na ci carton yu yoo xam ne benn ngelaw caaxaan yëngalu leen. waaw maanaam kilifa gu dekk dekkaaral mooy jaar ci paam ngañ waaye. kii sewe gi uuf kuuf rek la leen def ñu naaw ñu dem dootuñu nekk fañ nekkoon surtout nag boo fay dem lu wóor doo sàcc waaw waaw bu dee sàcc la dana la dégg naa ne sàcc nga nangam nu demee <laughs> xam nga kooku sàcc du ko bëgg waaw man jàpp ne euh, euh, émission politique yàgg na am ci télévision ndax li tax émission politique yàgg am ci télévision mooy ñi nga xam ne ñooy acteur politiques yi fësal seen bopp wane seen ak ràññalente ak wane seen ak xarañ ci li ñuy def ak fexe bu ñuy fexe xëcc nit ñi seen bopp da leen di jaral saa yu leen woowee ci télévision yu ñëw fësal fa seen bopp. loolu nag dafay am ci ay émission yoo xam ne ñu koy tuddee émission politique waaye émission politique yi nag dafa am yoo xam ne yi méngoow ñu am na yoo nga xam ne yi nuróowu ñu la koy sos mooy du saa yu woowee homme politique ci ci émission mu toog nga jàkkaarloo moom ngeen di wax mbiru politique. yaa ngi ci émission politique comme ni ñu koy defee feneen loolu moo tax booy seetlu am na ci émission politique yu nga xam ne ci njëlbeen ga danga daan woo nit ki mu jàkkaarloo nga koy laaj laaj boo xam ne mu ngi jëm ci moom wàllu homme politique am lan mooy li nga xam mooy mébétam ci muy bëgg ut. moo xam ku bëgg doon député ku bëgg doon président ma ne mu bëgg doon boo defee it lay doon il lay waxtaan ba mooy ñi jàkkaarloo ak moom di ko déglu naka lay mën a fexe ba ci li muy wax. mu mu mu indi ci luñ koy gëme ne li muy wax lu mu gëm la tey it buñ ko joxee li muy xëccu dina ma am fu mu mën a dem ak ñoom kooku nag ki jàkkaarloo di ko laaj nag day doon ko nga xamee ne kii nag ci la nga xam mooy xalaatam ci la koy laaj maanaam li ñu tuddee programme am léeg daan wax sax idéologie am na wax sax projet de société yooyu xam ay mandarga la daan doon yoo xam ne da doon gàllankooru ci booy waxtaan ak homme politique sa laaj ak moom nag ci loolu rek nga koy teg bu ko defee nag buy jeexal moom émission bi ngay def moom war na fekk mu indi la loo xam ne lii ci ñuy déglu ak ñi nga xam ne ni moom li muy def ñoroon na leen buñ ca jógee na ah, kii kat li mu wax ànd naa ci ak moom kii daal moom doy na ma ci li nga xam moom la yëngatu muy wàllu politique. une minute de silence alors que lu mat plus de vingt soldats dee nañu fële nga xam ne mooy Casamance mennum Njaga Diouf daanu tëdd yéene wu ma ko ñoo bokk banlieue bi naxari na ma mais le fait que une minute de silence. ñu yëkkati ko à sa mémoire mais loolu wane na ñoom seen féete. wane na carrément que ni loolu ñoom ñoo ko def. ñoom ñoo ko sant lu ba nit dee ci. demeewul noonu de bu ko interprété noonu boo ko interprété noonu di nga juum. la demee. daf lay karkaral daf lay sëkkatal daf lay ërtal daf lay daf lay daf lay karkaral boo jaaree mu fekk la fii boo boo delloo gannaaw mu mu avancé boo boo avancé mu tànc la waaw moom loolu nag. loolu day day niru tiiñal da lay tiiñal ma maanaam da maanaam li li ma neex impression bi ma am bi ma jàkkaarloo moom mooy kii toogu rek gis la rek ne la kaay waxtaan man xaj na ñàkku bu la wooyee dina dina am ñeneen ñu waxtaanal moo xam ci biir rédaction bi la moo xam ci peut-être yeneen rédaction yi moo xam sax fa nga dëkk moo xam ci ñi nga bokkal parti la wala ñi nga jàkkaarlool loolu nag gëstu bu muy def moo tax émission am intérêt. dina la laaj loo xam ne. yow ci sa bopp boo amul dal comme ni nga ko waxee di nga xax mer mais yaakaar naa ne nit kuy jiit wala kuy jiite waroo mer ndax ay nit nag comme ni ma ko waxee boo leen dàqu la jàng